groupe des médias jamono jiile yëngu na lool gannaaw bañ leen doon tudd ci coowal fisc bi la yoon nag ab arrestation la ñu nemmeeku ca kër googee groupe des médias nag jamono jiile ab xibaar la ñu jot bu ñuy yëgal nag euh, tegug loxo ki nga xamante ne moom mooy Pape Moussa Touré di directeur de publication bu quotidien bi nga xamante ne moom mooy la tribune te ko moom du kenn ku dul Bougane Gueye Dany mi nga xamante ne moom mooy PDG bu groupe des médias baar ñu jot investigation criminelle di dig ñoo ko daal di nag jëlee ca bërëb boobee ngir nag jébbal ko ab convocation boo xamante ni sax mbir ma ba mu amee nit ñi dañu foogoon dañu ko teg loxo waaye nag gannaaw ba ko suñuy naataangoo jotee moom Pape Moussa Touré ci la leeral ne nag ab convocation la ko dig doon jox mu nekk nag mbir boo xamante ni ba léegi xamaguñu lan moo waral nag ñu daal di koy jébbal bile convocation waaye nag li nga xamante moom mooy mbir ya fulu na lool bu sukkandikoo ci ay xibaar yoo xamante itam ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu naataango yu Burnews ñu ko fësal li mel nag mu nga am ay bés rek gannaaw ba ñu jotee visite ñi nga xamante ni ñoo fari ca inspection du travail fa nga xamante ne moom mooy ca groupe boobee di dee média nee nañu nag fësaloon nañu sax ab communiqué boo xamante ne ressources humaines bii la entreprise moo ko fësaloon mu nekkoon nag pour liggéeykat ya fari ca bërëb boobee ñu jagleeloon leen bii le document ca gannaaw ba nag la ñu gis ne document boobee dafa fuité mel nag la ñu xamle waaye ba léegi njiit bu groupe des médias di Bougane Gueye Dany ni kenn dégg ko mu àddu ca mbir yooyee nga xamante ne mu ngay xew ca këram googee dekaaral bu mat sëkk la wane ci li nga xamante ne moom mooy xew fa nga xamante ne moom mooy ca këram googee ne set setal bu ñuy waajal fii ci diwaanu Sénégal tax ba njiitu réew bi di président Diomaye Faye daal di nag jël lépp daal di koy dénk jëwriñ ji nga xamante ne moo yor wàllum urbanisme ak collectivité territoriale ak aménagement de territoires di Moussa Balla Fofana. liggéey boobee nag Moussa Balla Fofana daal di ci ñoom ñooy ay agent om ba tax na sax tey ji amaloon nañ ab sortie ngir nag xool sit yi nga xamante ne fa nañu fas ki amal liggéey yooyu ca diwaanu Ndakaaru nee na nag li nga xamante ne moom mooy agent ya takku nañu lool 5000 agent la ñu génn ngir nag amal lee liggéey ca na mu waree maanaam rek juróomi junni agent génn nañ leen fii ci diwaanu Sénégal li nga xamante ne moom moo jëm ci unité motorisée yi nag nee nañu toll nañ ci 300 maanaam nag téeméeri ndaw yoo xamante nag SONAGED di société bi ñu denk mbir ma moo ko daal di nag déployé fii ci diwaanu Sénégal mbir moomee nag di set setal national nee nañu nag samedi benn fan ci weeru juin bi ñu dëgmal la ñu ko faskee ne amal nag mu nekk liggéey bu am solo boo xamante ni na lool kii di njiitu réew bu Sénégal di Jomaay Faye ba tax na sax gis nañu ko mu def ay vidéo di sensibiliser ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan bu Sénégal ngir nag ñu waajal mbir moomee nga xamante ni ñu ngi ko duppee ab set setal national